sur la table que ne président bi engagé na ay chantiers yoo xam ne moom moo ko war a mën terminer te boo gisee ni muy doxalee ak tel actuellement ni ñu dëkk bi ni muy doxee ni Boubacar li mu wax dëgg la c'est-à-dire que loolu actuellement moo nekk xel mais président bi aussi actuellement dafay jauger ci lu bëri moo tax élection yii ci bëri enjeu yi ci loolu dafa am lu mu ci bees déjà bu njëkk bi am na alerte mooy élection locale yi nam ko yaakaaroon dem na malgré nag li ñuy taxaw di wax yëpp kan ne ñoom dañoo gagné gagné wuñ dara parce que le problème qui se pose aujourd'hui moo ko soo xoolee électoralement parlant aujourd'hui le président est à 41 pour cent mm-hmm. ça signifie que son électorat mi ngi commencé di effrité wu te loolu ils ne le disent pas le problème ce n'est nombre de collectivité gagnées le problème c'est aujourd'hui le nombre de suffrages yi nga xam moom lañ collecté te loolu li ko indi mooy déjà que ne Sénégal yi commencé nañ di ko wan ginnaaw maintenant l'autre problème moo di législative yi nga xam mooy ñëw et c'est là où se situe encore l'enjeu maintenant lii Boubacar wax léegi sur le regroupement des forces politiques de l'opposition c'est vrai loolu mooy lu gën mais ça ça peut être un peu difficile de le réaliser parce que xam nga toujours dafa am ñoo xamante ne ni ils sont dans l'opposition mais ils sont avec Macky Sall. absolument je suis d'accord et ça en ñëw na chaque fois su ma wax les gens pensent que damay acharné wu ci ay nit ñi mais l'histoire m'a donné raison bu ma ko doon wax parce que ceux qui l'ont fait trois ans après ils ont bi Macky Sall ñëwee rejoint dans son gouvernement donc ce qui veut dire que ñooñu bañ koy def ñoom xam na lan moo tax ñu defoon ko y avait aucune raison nag boo xamante ni bu kii kii tane déedéet ils voulaient tout simplement déstabiliser l'opposition et en dernière minute ils ils ils sont parvenus et je crois que nga xam ils sont dans l'opposition loolu war na La grande donne aujourd'hui, l'inconnu, c'est-à-dire, c'est Wallou, avec ses et quelques mille électeurs. Oui, absolument. Parce que, Fintolni, la jonction entre Wallou et Yewi, je crois que c'est là où l'opposition, la coalition Gomsobop, moi je ne sais pas sur comment finir Taxantank. Et je ne suis pas sûr que Gobsebop dina dem rejoindre la coalition Yewwi. D'autant plus que ils ont toujours appelé pour une Non non, il histoire, aussi entre il y a aussi et Gobsebop. loolu yàggul dara mi ngi fii ci local yi. Et ce même problème est toujours La taxoon ñoom ñu bañoon loolu mi ngi fi ba léegi. te góoma de. non mais est-ce que foofu tamit du ñu comprendre ne que enjeu yi changé na comme président nu mu ko waxee. Ah, moom laa la mais damane ne d'accord moom laa mais dama ne. d'accord na ne que enjeu yi changé nañ. waaw mais xam naa li may wax dama man. wàllu ànd ak Yewwi moo gën a probable que ñu gëm sa bopp dem ànd ak Yewwi loolu moo gën probable te aujourd'hui je sais que le président de la République li ma xam ne moom lay def mooy il fait tout pour que wàllu du rejoindre Yewwi parce que loolu moom serait un grand danger pour lui parce que déjà ñii ils sont à huit cent mille voix ñii ils sont à quatre cent mille voix suñu boolee seen i force Macky Sall est derrière plus maintenant les autres coalitions yi nga xam ne aussi ñi ngi ñi ngi ñëw maintenant mën nañ mën nañ ci greffé wu après moo tax ma ne léegi calcul politique yi c'est-à-dire ci foofu lay situé mais bëggoon naa wax tuuti un peu sur le discours du président de la République parce que may ma rek ma dugal ko ci xamul tax parce que le discours du 4 avril dañ ko galvaudé. c'est ça. dañ ko galvaudé parce que le discours du 3 avril c'est pas un discours bilanciel. Mm-hmm. bilan boo koy def dangay bàyyi ba at mi jeex nga def sa bilan. mais mënoo def bilan le 31 3 mois après nga defaat beneen bilan encore mënul nekk c'est pas possible. et j'ai wul ci Macky Sall mais de tout temps président yi nga xam ne ñoo fi jaar dañuy jël 3 avril di def bilan alors que nee nañ leen c'est la fête des armées de la jeunesse il faut parler vraiment sur l'armée sur les valeurs civiques ci yooyu nga a tënk sa discours. wax ci ndaw ñi boo ñëwee ba at mi jeex nag nga ñëw wax say réalisation wax say def sa bilan ba pare wax say perspective mais le président en a profité pour wax encore ci xëyu ndaw ñi et cetera te le problème qui se pose moo di soo jàngatee discours daawam ba nga jàngat discours ren bi amul benn différence sauf que soixante cinq mille emplois yi nga xam ne moom lañ fa digge woon te du woon soixante cinq mille emploi parce que boo xoolee la totalité des emplois foofu ça faisait cent dix sept mille emplois 700 mm-hmm. loolu la woon le président bi muy def récemment euh, comment dirais son conseil des ministres qu'est-ce qu'il a les chiffres encore ont parce que 3 avril il a donné le chiffre le chiffre de 46 334 emplois ñu réalisés ñu ñëw conseil des ministres quelques après le président bi na ci 16000 emplois fan lañ jëlee 16000 emplois on on ne le dit te emplois yooyu yan emploi la est-ce que ce sont des emplois saisonniers est-ce que ce sont des emplois précaires est-ce que ce sont des emplois CDD CDI loolu aussi lu jar wax nit ñi la parce que aussi toog di wax ne def naa emploi yii ni nii nii nii et cetera te wax yan emploi la te emploi c'était bien défini dans le discours de l'année dernière parce que bañ koy wax dañ ne c'était des emplois destinés à la sécurité ci enseignants yi ci euh, comment dirais-je ci ci euh, ñi yore affaire pavage bi hygiène publique et cetera emploi ci loolu la On avait parlé des emplois que devait générer des emplois que devait générer le data Tout ça, le président ne, l'a pas dit. Le problème qui se pose, moi, le dernier rapport de l'ANSD qui nous dit qu'il en tout cas un bon du taux de chômage de 7,8. Comment se fait-il que qu'on nous donne, qu'on donne ce chiffre-là, aujourd'hui nous en sommes à 24,5 et qu'on nous dise que quand des emplois. C'est un c'est-à-dire que discours yi foofu lañ ko war di jàngatee li nga xamante ne moom la rapport ANSD di wax ak li nga xamante moom la président wax c'est-à-dire am problème et souvent quand j'entends aussi certains yi nga xam autour président même chiffre bi nga xam président da koy sax j'ai entendu de de de, de faux types qui disent que oui le président mais c'est de faux types dans la mesure où c'est des gens qui disent que oui il y a eu des erreurs de compilation et parce que bu fekkee ne président da ko war a jox moom lu mu war a toog lire ko nga ne c'est des erreurs de compilation moo tax ces gens là quand c'est de faux type il faut qu'on cesse nag aujourd'hui di foyer sénégalais yi il faut qu'on de de parce que aussi nit ñi xam nañ comment ça se passe aujourd'hui dëkk bi métti na méttiwaay boo xamante ne nii am loo xam waroo taxaw di ko wax ci kanamu nit ñi. d'accord dinañ ko dinañ gën a yaatal euh, euh, Serigne wu ñëwaat ci euh, Omar Faye également ak invité bi parce que tey focus sur sur sur l'invité Cheikh Omar mm-hmm. dañuy dem ànd ak sangu sangu yi parce que moom itamit laata ñuy ñëw ci yaa Seyda ndax Ndiasse Ndiaye mu ngi toog te internet yi ñu ngi koy xaar ñu def ñoom ñaar benn pello bu bu ñuy xaar bu neex loolu comme ni ñu ko tàmmalee donc Mouhamed. ma jox la nga nuyu nag sa sa sa gan mm, dalal ko euh, moom itamit xam naa euh, mu ngi toog ak ñi mu àndal te euh, téléspectateurs yi ñu mu koy xaar boo nee ma pelloo rek sama xol bi day sedd <laughs> nee na man yonente bi laa am boo may dàq këram laa jëm bu ma la toojee këram laay dellu am naa nag question yu ma itteel après dinaa ko laaj Seydi Aboubacar ci wàllu actualité ak politique njaase <laughs> gars yi nee na guddi na boobu ba ñu ngi lay xaar internet yi ñu ngi lay déglu itam Thiès a ngi xaar Dakar ngi xaar loo ma indil tey daal am naa envie jàkkaarloo ak yow. mën na sax ñëw taxaw fii su ko neexee yéen ñaa ñëpp ngeen taxaw. Ndiaye sa ay ca dox wa di nga nuyoo di nga nuyoo ba doyal. waaw ginnaaw toogaay kii taxamuñu kañ lay jeex dañuy nuyu suñuy kilifa rek. Mhm. ndax fu temps bi ñu xam ni li ñu war def nañ ko. ndeysaan. ñoo ngi ziar baax takkal ba Bachir.